เออ ahlan bikum Moustapha Cissé hab sénégalais la fa feebar dem kër docteur docteur ba bañ koo faj ñu di ko sàgganee ba mu faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca diiwaanu Passy hay mbokkam ñoo ko wax turbine yéene kaay yeggee ñu ko yéene kaay bi ne démbu diiwaanu Passy tàngoon na jër bés bi yéene kaay na ko fa wàccoon ca mbedd ma na danañ xar dëkk ba ndax mer turbine yéene kaay na ko mujj gi gendarmerie lañ fa yebal ngir saytu kaaraanga ga bés bi yéene kaay na ko beneen médecin ba fañ koo rawale sax yóbbu ko Kaolack ndax askanu fañ ko doon tëkku ne fañ koy def lu ñaaw turbine yéen a ne kon ganeen càggante amati na ci kër docteur ba tax Moustapha Cissé faatu ndax bi ñu yegsee ca sant de santé bu Passy ba médecin ba fa leen wax ne man mënu koo faj du ko sax xool source a yéen ne hée def leen ndànk yëf wax yi ci am fa wuute de ndax waa kër docteur yu Passy fa ñoo weddi li ni mel nee nañ Moustapha Cissé laata mu yegg sa ca ñoom fekk faatu na léegi infirmier bi moo fàttee bind loolu leeral ko ndax fa tiitoon ragal mbokki Moustapha ya ne leen dëgg de nañ def am nañ ñu mën a seede ne yegg si na fa ànd ak bakkan yi ne ko sàggane sage-femme ya yoroon soxna asu soxna ba mu faatu tey jëwriñ ji di Diouf Sarr dëggal na ne sage-femme ya seen loxo nga ca biir 24 heures yi ne kaay ñu ko xamal l'observateur na ko hee waaye sage-femme yañ ca kaso weddi ko ba tëdd ca naaj wa yow seetal kenn ca ñoom ne na man maa doon xool ak a faj asu soxna waaye faa fàttee bind ci dossier bi yeneen mbir yoo xam ne gisoon naa ko ci assu sage-femme ba sant jaag ne collègue am ba moo bind sa de décès li tax ko nag moo jëkkëru assu fa yàkkamti woon yóbbu niw laata muy faatu yaay booy ma faa tàng est-ce que suba dina ma fi fekk yaay ndeysaan mu jut ko faa fekk ndax fa faatu keneen ku faatu moom nag fañ koo rey mooy xale bu jigéen ba dëkkoon barñi anta njaay soxna sam àndatoon muy doomu nijaayam ba ndekete loxo ma nga ca biir yaaw seetal libération moo ñu xamal ne anta njaay daal ginnaaw bu ko soxna si ne ko kaañ hànd bañ demee ba ca buntu tabax ba fa ko faa bàyyi dugg ca biir fekk fa xale bu góor ba mémoo ñu nekkal ko fa di def yu fi saay-saay ci la anta bett leen léegi na ngir bañ mu nettali ko ci la xale bu góor ba xoj ndaw sa jàpp sa tànk ya di dóor ba anta mujj faatu ki bëgg a faat ray waaye yeewi askan wi ak wàllu Sénégal ci wàllu politique du kenn ku ma njiit réew Macky Sall yaaw seetal ma ngay ronqi fay nangu ay maire yu bokk ci ñoom vox populi moo ñu ko xamal turbine yéen a kaay dëggal ko na ko Macky nangu na gaydel bu sagata ak Assane Dia maireu Bambey te yeewi la bokkoon source ay yéen a kaay na ko waay yeew yi ña ngay accéléré seen tànneefu député yi bokk gis-gis nag ñoom ak bunt bi ñoo nar a ànd ci wote yi di ñëw coalition ñoom Thierno Alassane Sall ba ñoom sori nañu lool ci ànd ak waa yeew yi waa wàllu ñoom ña ngoro Cheikh Abdou a gaz ma ngay leeral li tax mu bëgg a gise Macky Sall mooy jafe-jafe ville bu Dakar ak doxalin ba la ko bëgg a yeggee yéene kaay bi mel ni ku ko yaakaar naa bu du gaaw de ndax jël bi nga jël Guy Marius Sagna ak capitaine Touré ñuy liggéey ci sa noon yi fañ la cee mere de l'observateur ne Macky Sall kay ma ngay wëyal nangu gi muy nangu maire ku jëgi gaa yi ngi transhumé rek waaye moom na xam na lu ko doy de Macky Sall dund gu geek jafe-jafe askan tabakkee parti Macky ba mu génn ci ay jafe-jafe ba xàll bi fi mu toll ni courant bi Macky ngay taxar rek juróomi téeméeru ay gox ci xàll bi Macky yóbbu na fa courant lépp nag yàlla ak Senelec lii yéene kaay ma ngi koy leeral la mu leeral moom réew mi yéene kaay mooy ministère de finances xam na fa ab fonctionnaire boo xam ne fa ñàkk ab immeuble bu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukki million <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne gouvernement bu yenn ci ay jëwrinam fañ doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi lépp ngir dalal xelu askan wi Sud Quotidien na ko Sophie Gladima moo njëkk a dalal xelu askan wi sen bi laas yéene kaay na ko def nañ fa tamit bilan téeméeri fan yi nga xam ne teer bi mooy saxaar gu gaaw gi farara bi mu commencé daw léegi yow seetal juróomi million doomu aadama duggagum nañ ca saxaar ga lañ ca amagum ci xaalis toll na ci ñetti milliards jëwriñ ji di Mansour Faye moo ko wax turbine yéene kaay mel ni ku naan ko yow de wax nga xaw xay kasaara dëgg yow fa ngaa dëggal li sénégalais yu bari doon wax ne teer bii saxaar gu gaaw gi fi Macky Sall andi xamul benn njëriñ facee lajji ndax sénégalais yi am na la leen luñ gën a soxlu ñu dugal ci alal ju du jeex te ñu njëriñ ndax fi mu toll nii bu yàlla sàkk Sénégal dana fay ñeen fukki milliards ci TER bi te dañ koy fay ba mu toll ci ñaar fukki at ak juróom loolu foog ngeen ne jàmm la faneen fu jàmm amul Sénégal mooy wàllu wér-gu-yaram gi santé ba tax témoin yéen a kaay ne gouvernement bi def nañ bilan ci wàllu wér-gu-yaram wàllu courant bi dem bég dikk bi tàggat yaram li tax Sadio Mané nekk dëgg-dëgg jamaale Benzema ci ballon d'or bi stade yéen a kaay wax na ko la mu wax moom Mbaye Niang ci record yéen mooy fa bëgg a dikkaat football Sénégal nee na namm na équipe bi te amul benn problème ak Aliou Cissé yi ñoom nga am ak yow ñu xoola nga bañ a ñëw ñàkkal am coupe du monde moo tax nga yëglu waaye Aliou Cissé ñëmul laa sax woowaat xalaatul ko sax la mu xalaat ba wax ko moom tribune yéene mooy ne korite gi narta neex ren de ndax jafe-jafe yi réew mi nekk dund gu cher ge ñàkk gi crise bi la waree journal na ko li nga waxee dëgg de li askan wi dundee fa yokk ba jéggi dayow te xaalis xamut léeg-léeg sax nga dem ci marché bi bëgg a jënd te doo gis loo jënd ba tax yéene kaay bi na korite gii fa nar a compliqué de waa ma ne waa nañ yi nga xam ne jamono ji fa tàng jir jir jir sant nañ yàlla la ñu war a lekk ak la ñu war a togg moom moo xam ganaar ak ñoom seen xanaa ñu bàyyi ko ci loxo yàlla